ci li gën a fës ci yéenekaay yi bokk yi mbaa jàmm ngeen ñun de ñoom ma yéenekaay bi sadat xëy ci xëttam bu njëkk ca Edward Francis Small Hospital muy raglu bu mag ba ñaari kilifa ya ñoom nag ku ci nekk ngay jiiñ sa morom lu jëm rek ci wàllum lubal kii di docteur Diagne ak docteur Sall ku ci nekk daal jiiñ na sa morom ci wàllum nju njàcc ak li nga xam ne rek moo jëm ci doxalin bu rek jaar yoon ki nga xam ne nag moo di docteur Sall moom rek dafa daal di addu jëma rek ci xam ne mooy Edward Francis Small Teaching Hospital pasar pasare ci wàllum tukki yu jaarul ci yoon ak itam ay jënd yoo xam ne ñu ngi koy rek amal ci ay bagage yoo xam ne jënd bi du jaarul yoon loolu daal moom docteur Sall ne rek lu jëm ca loolee dinañ ah, rek daal di dina rek daal di lu ñu ti mbir yooya kii di docteur moo di docteur Sall moom mi nga xam ne moom rek mooy ceyaamaan mu wax nee na daal moom mi ngi def sax lu ko gën a yées yu rek lu jëfandikoo dooleem ci rek di tabb ku ko neex koo xam ne mbokkam nga mu daal di koy rek tabb ak itam nag di def lu ko neex foofee kenn ci ko xam ne daal dina àddu nag ci mbir moomee te nag bañ a wax turam daal dina xam ne ne lu jëm ci njuuj njaajo ñuy jiñante ñoom ñaar loolu nag faaw rek ñu daal di lu ñutu ci rek kilifa yi bu ñu defee lu ñutu moo di action ubbil ma weneen xët langub UDP gi seen ne rek ñoo di farandoo am yi daal di leen xam ne ne faaw ñu gën a takk seen a wàkkir gën a pare ngir rek lu jongante atum ñaari junni ak fukk ak juróom benn muy 2026 présidentielle élection du yomb ci ñoom ndax nag langue yu bëri dañuy rek ñëw ngir rek jàmmaarloog UDP kon nag faaw ñu gën a pare gër rek daal di taxaw rawatina itam nag buñ jëmee ci lii di xam ne moo di draft constitution bis bu rek jàllee ba nekk nag li nga xam ne moo di rek a jàll nee na bu koo xam ne rek ci langue nga bokk faaw daal def ci yitte biir rek langue gi daal di xam ne daal ne xeex bi daal mu ngi doog a tàmbale te nag nañ gën a góorgóorlu gën a taxaw mu daal di xam ne itam nag nag bu ñu bëggee xeex li nga xam ne rek moo di dund gu métti gi ci réew mi faaw ñu faxas fii ki nga xam ne moo di uh, kii di Adama Barrow mu daal di xam ne ne bu fekkoon ne UDP dafa bëggoon a dallu bëgg rek daal dallu uh, seetaan ñi nga xam ne rek ñoo di askan wi bu baax nag dafay des ci nguur gi waaye nag ñoom uh, lu ñu rek bëgg mooy askan wi nekk ci afiya nekk ci piixte te loolu nag ngir ñu am ko faaw rek ñu jëlee fii ki nga xam ne rek moo di Adama Barrow Amérique mu may boppam ak léegi moom nag Madi Jubaate dana rek rafetlu na ko waaye daal moo bañ moo lànk ba tëdd si suuf si ne rek du daal di dem jàppale ci ak ak yelleefu doomu aadama nee na daal moom du dem tey du dem suba ubbil ma weneen xat jiyaar yi di màkkaan gi nga xam ne rek mooy dajale galak ci réew mi muy rek Gambia Revenue Authority daal dinañu rek amal xaatimub nangutoo maanaam rek sign agreement ci seen rek diggante ab rek benn kuréel ku rek nekk ci réewum Canada tey nag nekk ci lu toll ci ñaar fukki réew ak juróom benn ci àddina si lu jëm rek ci wàllum kalak ngir rek mu daal di jamono teg ko itam nag ci wàllu xarala waaye itam nag ngir mu gën a leer naññ ba rek ñëpp di ko rek mën a gis teg ci itam nag gën a noppal ñi nga xam ne ñooy fay galak di mën a taaye rek dem fi nga xam ne mooy rek ca màkkaanu jiyaar yi ba teg ci itam di xam ne ne loolu yi bu ñu ko rek daal di am lee dina doon loo xam ne lu jëm ci wàllu luubal ak itam nag nju njaaj dina wàññeeku ci wàllu woobi teg ci itam nag dina gën a leer te nag dina gën a ñoŋ ubbil ma weneen xët PPP muy langu ak ndem si yàlla Sir Dawda Kairaba Jawara ginnaaw ba moom ndem si yàlla Sir Dawda Kairaba Jawara ba mu amee rek téeméeri at naam fekk ko ci kaw suuf ci noonu nag ñu ko doon màggal ñoom dañu rek doon janoog taskatu xibaar yi maanaam press conférence lañ amaloon doon ko ci rek màggalee di waxtaanee liggéey bu mu def taxawaayam ak it pas-pas gu mu amoon teg ci itam nag ne liggéey boobee yépp mu liggéey bu mu naax saay yi nañu rek daal di ubbil ma yéenekaay bi point xëy bind ci xëtam wu njëkk ñi nga xam ne ñooy layal Ousmane Sonko ki fi nekkoon jëwriñal biir réew eh, ci rek biir réew mi maanaam former ministre of interior daal dina xam ne rek mooy xaar ba nga xam ne rek kii di attekaay bi daal dina rek jébbal këyit gi eh, jébbal leen ko ñoom jébbal ko ñi nga xam ne rek moo di court of appel su ko defee nag ñoom am nañu ñaar fukki fan ngir rek mën a dabu li nga xam ne mooy atte bi te boobaa dinañu beneen xët ñi nga xam ne rek ñoo di soldat réew mi seen njiit lii di rek CDS Mamadou Otiam daal dina xam ne daal lu jëm ci wàllu mbay faaw rek soldat yi dugg si boo xoolee nee ëpp rek ne dañ koy jox rek soldat yi lu ci ëpp les koy rek jëfandikoo mooy rek wàllum dund te nag nee bu boobaa bu ñu rek duggee ci mbay mi lu bari dina wàññeeku te nag xaalis boobee ñuy daal jëfandikoo ndax nag nee lu toll rek ci juróom million wala juróom benn million ci kopparu dales des koy rek daf ci dund ci rek soldat wàññi lu bari ci rek boobule koppar te koppar googee mënees nañ ko rek daal di dugal feneen ne nag jamono jile ñoo ngi lëloo ak ñi nga xam ne ñooy rek seen lëkkatookat yi maanaam seen partenaires yi te nag saa bu ñu rek daal di waxtaanee ba déggoo bi am rek ba ñu daal di door projet bi dina rek am njariñ lu bari lu mu rekk daal di julal soldat yi